te nag ñoo fii ci Kaffrine tëj nag tournée économique bi nga xam ne moo lañ commencé woon depuis deux jours dans la région ñu dem Berkilane dem Malem Hodar dem te tëjee ko fii ci Kaffrine pour seet si jigéen ñi seet si famille yi seet si xale yi wax nañ ko léegi gis ngeen représentant UNICEF ñoo ba dem c'est parce que tey jour bi dafa nekk une journée spéciale une journée dédiée à l'enfant ñu ñu célébrer trente deuxième anniversaire de la convention des droits de l'enfant ci addina bi yëpp Sénégal yàgg ko di ko def chaque année ñu koy célébrer fii ci Sénégal waaye tey yàlla dogal na mu fekk ñu fii ci Kaffrine ñu déplacé ànd ak ñun pour sargal bés boobu. bés boobu nag boo gisee mu am solo parce que l'avenir d'un pays ce sont les enfants xale yi ñoo yor réew mi ñooy màgg ëllëg ñoom la ñu a jàpp ñu war a protéger bu ñu nekk ay dignes fils du Sénégal. te jàpp naa ne nag loolu président de la République dafa placer au cœur de son programme de développement la protection des enfants ñu war a yir xale yi yërëm leen jàppale leen may interpeller nag waa région de Kaffrine di interpeller sëriñ daara yi di interpeller yaay yi parce que jàpp naa ne li am ndakaaru te buñ ko xoolee waa Kaffrine am nañ ci wàll parce que am na fii dëkku diine la dëkku daara la ñu bari dañuy jógee fii dem Dakar di fa yóbbu seen ay xale ñu leen jàngal kon fii bi fu ñëwee war nañ a message pour yaay yi ñu topp ko seen njaboot doom su màggee gërëm yaayam mbaa mu xarab ko doom su màggee gërëm yaayam mbaa mu ko diine lislaam si ñun la bokk ñu ay jullit lañu biir ak xal gëm ko nag di ko pratiquer gëm sunu njaboot aussi gëm suñu ay doom tam bëgg leen proche ëllëg si ñu doon kenn waaye jàngale alxuraan ci réew mi defe naa loolu cosaan la dëkk boo dugg village boo dem rek fekk na taal jàngu du jàng ay alxuraan sunu maam yi ba na gën si waaye li xew léegi ci réew mi jël ay xale dagale leen yóbbu leen Dakar dugg leen ci appartement ñu ci condition yoo xam koo gis jooy loolu du daara daara lañu toog ci village yi toog ci kër yi toog ko seen ay njaboot jàngal leen ba ñu wàcc alxuraan loolu la ñu seen seen daara yi kon Sénégal li wax rek ñu am chance am président de la république Macky Sall mu jël jigéen ñi bëgg leen jàppale nañu autonomisation de la femme mooy fexe ba jigéen mën a seen bopp parce que bu ñu mënee seen bopp rek réew di jëm kanam parce que on est 52 pour cent de la population nekk itam ci biir kër yi mu xam ko lool. andi ay projet de programme yoo xam ne benn bu nekk jigéen a tax mu jóg wax nañ ko léegi tey bu ñu nee tey PUDC jigéen ñee tax ne accès universel à l'électricité jigéen ñee tax accès universel à l'eau jigéen ñay tax rapprochement des services sociaux de base nga xam ne jigéen bu sonn bu geesoo gis dispensaire gis école mën a jàppale doomam loolu jigéenu Sénégal moo tax président Macky Sall di ci bay tànk bay waaram di liggéey bu baax a baax mu teg loolu yëpp nag ne man nag maay président bi nga xam ne maay fay bu liggéeyul dara loolu mooy bu sécurité familiale loolu président de la république moo ko naa de la république dañ ko war a sant dañ ko war a gërëm mais dañ ko war a jàppale aussi mu ci askan bi équité sociale équité territoriale lépp loo xam ne ñi ne ci ville yi war nañ koo am ñi ne ci nga xam ne yàlla dafa dogal ñi nekk ci biir dëkk bi nekk ci gox goxaat yi dañoo war a fekk foofu fexe ba politique yi nga xam moom lañu moom lañu déroulé au niveau du Sénégal ñu gis seen bopp ci biir bu baax a baax parce que ñu jar jàppale lañu loolu moo tax sama tànk yi tey ma ñëw fii ci département de Kaffrine dans la région déroulé fii cette tournée économique nga xam dañoo war a jigéen ñi indi ay financement indi les matériel d' seet ay jafe-jafe liñ ci mën a indi ñu indi ko ci wax naa ko démb nee naa leen fi ñu jëm ak jigéen ñi mooy dans vers l'entrepreneuriat bëgg ñu jox ay financement yoo xam ne jigéen ñu ko fay financement yoo xam du am njëriñ benn njëriñ ci ñoom dañu bëgg a dem vers l'entrepreneuriat des femmes créer ay ay unité industrielle même yoo xam ne lii bay li nga xam ne mooy spécificité fii gox bi nga xam ne gerte la ñu xam ñu fexe ba di ko transformer bu baax a baax di ko mën a jaay fii ci réew mi waaye di ko jaay bitim réew mi yokk seen koom-koom loolu la président Macky Sall bëgg loolu mooy vision am loolu la bëgg